suba gi teg nga leen fitna ndax it balé kër ya raxas ya joxé dépense ba organiser añ ba da fay def ci sen kaw waye mbay jub dafa jar bu nu ko waxé ñepp bayyi lolu ñew fekk ci ko fi kon mbay ñi ngi lay téru dina dalal jamm di ñaan yàlla tànk boo jog ñoom fi ak ya ngay jog di ñoom ñepp yalla lay tank jamm lo ci jublu yalla la ci yalla fekk ak yiwu panel bi nak bi ko organiser ministre yaa ngi fi am nañu woo téléphone sax bëgg koo présider damaa bañ xam nga lu tax ku nekk la ñoro la ñor wut ma xam le kenn wut ma kenn xam kenn wut ma kenn topp kenn xam ngeen ku ma bëgg ñu kii ci sama wet kon lu may def lu ne moo ciy jiitu parce que nag nit ki fa mu la féete nga koy féete fa mu la yëge la koy yëge te dañoo yàgg lool muy bëgg a yàgg nag koo jaandal lu ëpp juróom fukki at bu ñëwee boo nee dëgg la dëgg la ndax lu yàgg dëgg kon bay ñu ngi lay teeroog jàmm di lay wax ni dal nga sa kër ñëw ko ci sa njaboot ñëw ko ci sa waa kër fii kenn ku àndul ak yow wala ku la bëggul wala ku bëggul nekk yow nekku ndax man duma jiite kenn ku dul ànd ak yow kon ñu ngi ñaan dinañu am beneen occasion boo xam ne dara du xew ci yow nga mën a toog waxtaan ak ñun ni ko bëggee waaye nag bu ay dog-dog ñëwandoo kenn ku ne da ngay jiital sa xel am na lu nit mënul baye gannaaw nek su baxé ba ñepp sax lako do ci xir lo ci am daf lay doy ñi ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal jamm di la xamal ni la ñun ñi ngi sa kanam ñi ngi sa gannaaw ñi ngi sa jor ñi ngi sa càmmooñ bo ne nañ mang ñu bu ñu mang ñu ne yaakaar naan ni mo wax traduire ñi tepp loolu la wax. et père de cinq enfants yalla lañ dund ta am barké il a fait ses études coraniques et primaires à Dara Mon un certificat d'études depuis 1957 Mon a études secondaires secondaire en On am brevet élémentaire depuis 1964 am certificat d'aptitude professionnelle ajusteur depuis 1962 certificat d'aptitude ferroviaire mécanique moteur depuis 1962 diplôme de formation du deuxième degré d'Abidjan. Mention et félicitations du jury. C'était le 15 juin 1970. Diplôme d'ingénieur de l'école supérieure des cadres du matériel et de la tractation du chemin de fer français. spécialisé de l'Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique. Évolution. Dans le temps, nous évolué. Mon nommé chef de bureau d'études, euh, euh, chef de bureau d'études méthodes et organisation depuis 1976. Nommé chef du département matériel remorqué. Chef de division principale de l'approvisionnement nommé directeur de la production et du transport le 30 novembre 1979, nommé directeur du matériel roulant le 25 mai 1985, nommé coordonnateur technique le 5 mai 1985, nommé directeur général de la régie des chemins de fer le 10 mai 1968, École supérieure des cadres de Louvre de 1971 à 1975. Stage aujourd'hui à plusieurs participations et à plusieurs séminaires ferroviaires. C'est un expert ferroviaire. Il est entré en politique pour soutenir le président Pour la demande de ce dernier, les fonctions occupées. Conseil municipal, naturellement, député à l'Assemblée nationale, président du Conseil économique et social de Caisse, quand cette institution a été régionalisée. Ordre national du mérite, ordre national d'union, commandant de l'ordre national du mérite. Mais M. Mbédiouf aussi c'est surtout distingué dans le domaine social. Action dans les mosquées, visite dans les hôpitaux, est infatigable de l'action de distance nouvelles oh. ah envers ces semblables. Mais moi, personnellement, dans mon pays, nommé une en sociale. Monsieur le parrain, levez-vous s'il vous plaît et marchez sur le sol de vos ancêtres. Marchez là où le nom de votre peuple était synonyme de peuplade épars et civilisé. Marche pour que triomphe à jamais les idéaux de ce grand parti d'espoir et de gloire. Vous régnerez longtemps. Vous avez reçu la bénédiction des érudits de l'islam. Merci, monsieur le modérateur. Vous êtes extrêmement intelligent et éloquent. Je suis très content de vous. Ici, en politique, généralement, nous nous exprimons en voilà. Parce que la majorité de nos militantes ne comprennent pas le français Vous comprennent pas. Comprennent. Donc je vais m'exprimer en deux mots en wolof. Moki Manglen maa nuyu maa sant maa ngi sargal Mana bi affaire bi da gaaw ndax da démb ak tey rek. boo fi mobiliser une centaine de personnes vraiment loolu c'est une prouesse wante nag Ndeye Fall mi ajaratu Ndeye Fall inspectrice dafay nekk sama jigéen nekk sama xarit nekk sama wëlëre nekk sama doomu ndey lu mu woote ak lu mu xat-xat-xat bu ma fa doon taxaw sax xool ko jàll sax naa ko def maa ngi nii Dakar laa jëm 14 heures la délégation war a départ damay ñaani jabar te xam nga boo dee ñaani jabar nag boo tardé boo tul la may ah. mais ndey faal mi moom lu muy def rek maa ngi ci gën a mbokk moom lu muy def rek danaa ànd ak moom mbokk ak moom li ñu jógal taxaw nag mouvement bii mu taxawal nag pour la réélection de président Macky Sall ah, nag moom nu ñëpp ñoo ñoo bokk ndaxte Macky Sall nag duñ def bilaam de ñu ko war a def ñu ngi daa ñëw ca kanam ñu ko war a def daañu def ñëw ca kanam wante koy sénégalais te iñaanoo defuloo xam nga ne Macky Sall liggéeyal na Sénégal kooku indi kenn mënu ko wér. ah li ci des nag mooy ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom buñ xeex buñ xuloo buñ saaga buñ yàq nañu téye sunu mbooloo organiser leen gérer leen. Parce que l'élection, yi ñu élire Macky Sall au premier tour loolu mooy sunu projet Ndeye Fall mii nag kenn jiitu ko ci loolu mi ngi ciy dox mi ngi ciy wax mi ngi ciy c'est une intellectuelle de mérite d'ailleurs du reste intellectuelle de mérite parce que être inspectrice départementale de la ville de Thiès n'est pas une mince affaire c'est pas donné à qui à qui que ce soit donc le fait qu'une femme la devienne pendant des années, une, plus de dix ans, c'est une femme vraiment extraordinaire. Donc nous tenons à la féliciter. li ci dal moi, politique moom kuy saga bokkuloo ci politique kuy a beaucoup ci politique kuy xaste beaucoup ci politique. politique c'est un problème d'idées. C'est un problème d'idées. Donc, da ngay am sa xam-xam di défendre li nga xam ne nga gëm. keneen itam war a defaat moom itam la mu gëm ma amatul saaga amul xaste man li ma gëm moom laa gëm naa wax li ci baax di ko tagg sama leader mooy wax li muy def lu baax ma di ko tagg loolu mooy politik musuma taxaw ci langue politique ba xas kenn wala saaga kenn wala wax kenn lu ñaaw ndax yaruñu ma ci loolu te dama xam ne aussi li ma jàng loolu nekkul ci politique kon daal lii dama mënu woon bàyyi ñëw rek maa ngi quatre organisation yoo xam ne war naa fa marqué présence te te quatorze heures war naa départ dem Dakar incha allah kon boo ngeen war a xam ne lii xat na wante nag mën ma woon bàyyi ñëw maa ngi remercier nag suñ militant yi ñoo xam ne démb rek lañ leen woo ceer kaar bi sax ñëwuñu ndax démb rek lañ woote ñoom ñu ñëw suba ba tey ñu ngi fi neuf ba tey ñu ngi fi toog ak ci naaj wi ci tàngoor wi kon boog buñ ma defalee lii man aw ma seen pay nit boo ànd ak moom lu mat fanweeri at vraiment seen ànd dëgg na te leen ànd ban àndee ba tey kenn jëpp seen morom man jëpp bu ma leen yéen jëpp bu leen ma kon boog kontaan naa ak yéen yal na yàlla kontaan buñ fi jógee nag ba campagne bi ubbi nag daañu def suñ organisation bopp nag ñu xam ne nu nun nooy organisation bopp bu boobaa nag ku ne dana xam fu nu toll ak lu nu toll ci président ak lu nu mën a def ci dëkk bi ak ci réew mi maa ngi sënt ñëpp maa ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum ma rahmatulah wa barakatu